ma ci internet bi ci www.gfm.sn ay ca 9h passé ñu leen di xaar ci téléphone bi 88 628 18 28 partie bi dañ ci àndandoo ak euh, BMW Miss Grain de Sel de l'autre côté régie 14 nga nekk tey ah Zézé. waaw régie 14 tey ah. ah tey yaa ngi 14 ah. démb régie ban la woon. Euh, démb yaa ngi woon 12. 12 ah. waaw tey 14 tey 14 léegi fan la. ah yaay xoola ah may xool xam nga xam nga yow da nga leew ba dof léegi yow boo boo xëyee fu la neex ngay dem taxaw pour wax ak ñun. lundi 24 laa jëm naan fii laay tourné tey. 24 et 24 sori na de te ngaa yem 15 eh, rek. waaw kon baa ma dem 15 wax nga. voilà alors qu'est-ce <laughs> qu'on a comme réaction ak internautes yi seetaan Yeewu Leen depuis 7 heures. alors euh, des réactions par rapport à l'élément du Bessel mhm. beaucoup d'encouragement surtout parce que Bessel nag euh, gars yi bëgg nañ la torop te kontaan nañ si li ngay def mhm. Dina Diaz nee na sincèrement Bessel est inégalable de par le travail original qu'elle fait oui. on est à Dakar mais par ta grâce on découvre le Sénégal et ses différentes ethnies Mbaye Seck nag ne franchement il y a télé et télé toog sa kër dem ba ci loñ ndax besel baas. il y a télé et télé. Euh, pour finir Nabou Mao Dogaye ô Bessel je t'admire beaucoup pour ta façon de faire vraiment tu es une reine dans ce que tu fais. Oh. Oh loolu laa amagum. Eh, yaa eh, mais mais Zézé. oui am na am na man bu ma liir xam nga dama sob waaw te damay superviser lépp am na benn bu ma liir. bu uh-huh. bu ñu ne. Euh, euh, tagalu besel bi dafa wengoon dafa ñaawoon mais tagal baa ngi doog a baax. ah non boobu jotuma koo gis kon. Ah, gis naa ko nag. Ah. doo bàyyi di ma tiiñal. <laughs> boobu gisuma. Ah, lii laay waxati nag su ma ko gisul gisuma ko. doo bàyyi di ma tiiñal. tagalu besel bu baax bii wóor na ma ne internet du ñu j'ai aussi des messages pour Mado mais damay bàyyi ba mu ñëw si rubrique am. ok euh, ñu doog ci dugg kon à tout à l'heure d'accord à tout à l'heure Zézé. bye tout à l'heure Aïcha continuer di réagir ah ci réseaux sociaux yi page officielle ay waay tey tey tey bi bi koppati fan laa jëm ak moom ah, lii nii fan laa jëm ak lii. <laughs> Aïcha ku woote